أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi nin ko baaxoo def noo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suratul maida ci kàttanu borom bi ñuy jël tey ñetti aaya aaye 70 71 72 ñetti aaya yi borom bi diñ ci jàngal juróomi mbir bi ci njëkk mooy bayaanu taarix bani israil ci aaya yi nekk sunu konam sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu ngi ñuy leeralal istuwaaru yahud yi ñooñ ñuy wax banu israil sunu borom mu ngi leeralal ñoom ñooy ñan seen histoire seeni jaar-jaar wa kashfi an muxtabaat jara jaraimihim min al kufri wal qatl sunu borom yemul rekk ci leeralal ñu jaar-jaaru yahud yi waaye wuññil ñu génneel ñu ay mbir yoo xam ne crime yuñ defoon ci àdduna ci kéeféer ak rey sunu borom mu ngi nu koy génneel ci aay yi nekk sunu kanam kon loolu dafay tekkiwaat ba tey ci li ñu tàmm di ko wax mooy tey bokk na ci li tax mënuñu xam ñan ñooy yahud mënuñoo jàng seeni mbir li ko waral mooy li nu sori sunu téere borom ndax borom bi tabaraka wa taala amul lenn loo xam ne desal na ko yahudi ci alquran seen mbon mbon yëpp yàlla génneel nañu ko ba tey ci aaya yooyu la ñu nekk yàlla dañu génneel seeni histoire seeni jaar-jaar ñoom ñooy ñan yoom waa banu israil yàlla di ñu wuññil di ñu génneel di ñu leeralal di ñu faram-fànceel an muxtabaati jaraimihim kirim yi nga xam ne dañ ko def ci sociétés yi sax ak ci dëkk yi sunu borom subhanahu wa taala leeral nañu ko ci weddi gu ñu weddi yàlla ak rey gu ñu doon rey ay nit yu baax ak ay yonent ñaareel mooy ikraamillahi taala li bani israil wa lutfihi bihim maa tamarrudihim alayhi wa rafdi mithaaqihi wa qatli anbiyaihi wa takdibihim wal makri bihim danañ jàng tey sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu teral gi mu teral banu israil teraanga yu mu leen defal ak lewet gu mu lewet ci ñoom ñu gis ne ñoom lu nu fayonteeg yàlla ci teraanga yi leen yàlla defal ak lewet gi mu lewet ci ñoom baax gi mu baax ci ñoom ñoom lan la ñu fayonteeg yàlla mooy tamarrud fittërlu waaw dëgër bopp ak lànk contrat yi yàlla siñanteeg ñoom yemuñ ci waaye wa qatli ambiya yi ñu topp ci yonent yàlla yónni di leen rey di leen weddi ak di leen fexeel rey nañ Zakariya ak Yahya weddi Muusa fexeel Isa bu ko rey yàlla daal di koy sëfe kon sunu borom jalla jalaaluhu danañ jàng ne moom ku teral war waa banu Israayil ndax genn wàllu yonent yëpp ci ñoom la leen yàlla wàcc yàlla defal na leen teraanga jox na leen aljanna pour ñu lekk defal na leen lépp waaye ñoom xéewal yooyu yàlla defal leen ak teraanga yooyu ñoom lan lañ ko fayanteeg yàlla mooy féttéer lu dëgër bopp yemuñ ci waaye lépp lu leen yàlla waxoon pacte la loolu ñu naan miisaaq bañ fa yegsee ñoom dañoo jalgati yemuñ ci topp yonent yàlla yónni di leen seppi kenn par kenn di rey ak di leen weddi waaye ak di leen fexeel posone yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam bëgg a rey isa yàlla sëfik yaxya moom ak zakariya dañ leen a rey bokk na ci li ñuy jàng tey taqrir kufru nasara bi qawlihim almasihu wallah danañ jàng tey ne chrétiens yi nasaraan yi ay yéeféer lañ xaw ma bi yan nasaraanu jamono ñoo nekkoon ay julit mais ñii ñu nekkal tey moom ba alxuraan wàcceeg léegi ba alxuraan wàccee ba fii nu toog nasaraan yi ay yéeféer lañ loolu alxuraan moo ko saxal tey te danañ ko jàng lan moo leen def ay yéeféer mooy dañu ne messi moom mooy yàlla ku ne isaa yàlla la yow yàlla nee na yéeféer nga mu nga danañ jàng mbokki jullit yi taqrir ubudiyatu isa alayhi salaam li rabbil alamin danañ jàng tey saxal gi yàlla saxal ne isa ab jaamam la kuy jaamu boroomam la jaam la danañ jàng tey sunu borom jalla jalaaluhu saxal gi mu saxal ne isa jaam la waxul isa sama doom la waxul isa sama nangam la li yàlla reconnaître isa mooy jaam nañ jàng tahrimul janna liman laqiya rabbahu wa huwa yushriku bihi siwa danañ jàng tey yàlla araamal gi mu araamal aljanna képp ku dajeeg borom bi fekk yaa ngi ko bokkaale yàlla araamal na ci yow aljanna kon buñ doon tënk dars bi ñetti aaya yooyu ci juróomi mbir yi lay wax juróomi mbir yi mooy borom bi dañuy leeralal histoire banu Israël ak nëbb gi ñu nëbb mbon yàlla génne ko wannu ko fàng ak rey gi ñu doon rey yonent yi ak kéeféer gi ñu nëbb seen xol yi danañ jàng taraanga yi leen yàlla defal ak lewet ci ñoom liñ ko fayee féetéerlu rey yonent yi ak weddi ak pexe danañ jàng chrétien yi sunu borom moo ne ay yéeféer lañ li ko waral mooy dañoo saxal ab jaamu yàlla boo xam ne dañ ko def yàlla muy almasih yàlla ne ay yéeféer lañ danañ jàng isa ab jaam la du doom du yàlla bu fekkee am na garaat gu mu takk muy ndomba tànk gu ko yàlla takkal ab jaam la ko yàlla wax danañ jàng aljanna yàlla araamal na ko ci bokkaalekat bokkaalekat du dugg aljanna loolu moom mooy sunu dars noo ngi ñaan sunu boroom mu dëgëral sunu làmmiñ ba du ñu génne ñetti aaya yooyu nu wax أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وثموا كثير منهم والله بثير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار sunu borom ne jalla jalaaluhu laqad ca dëgg-dëgg axad naa man yàlla maa jàpp jël naa miisaaqa dikk al ahd al muakkad bil yamin mu ne ma zaala siyaaqul ayat al karim aaya yi dañul alkiram fi lhadis di waxtaane an ahli lkitab ba léegi aaya yi dañuñu di waxtaane xeet wi di yahud di ahlul kitab sunu borom moo giñ ngiñ gu dëgër ne moom mooy ki nga xam ne ala annahu axada al misaq bani israil yàlla giñ ne man yàlla maa jëloon maa jàppoon benn pacte bu ma siñente ak banu israil pacte bi mooy lan wa zalika fi tawrat loolu mu nga ca tawrat lan la leen fa yàlla wax bi an yabudu llaha wahda nanu jaamu yàlla kenn kennal ko buñ ko dendale kenn wala lenn wahdahu yàlla rek nañ ko jaamu bi ma sharaa lahum ci lim leen yoonalal ne leen yoon wi laa leen rëddal jaar leen fi fa yutiuhu fi amri wa nahyi nañ ko topp moom yàlla ci ay ndigalam def ko topp ko ci bàyyi ay tereem yàlla dañ koy topp ci ñaari mbir topp ko ci jëfe ndigal yi topp ko ci bàyyi tere yi ndax ndigal yi moo ne def leen tere yi moo ne bàyyi leen yàlla nag lii la siñante woon ak banu israil yemu ci wa arsala ilayhim rusulahu moom yàlla mu tànn ay ndawam yónni leen ci yahud yi ku mel ne muusa ak haarun wa man jaa baadahuma ak ñi ñëw seen ginnaaw daawud suleyman zakariya yahya isa alayhim salaam ñii ñëpp yàlla tànn leen yónni leen ci waa banu israil waaye mbokk yi yonent yoo xam ne tatara dañoo tegalantoo ku dem keneen ñëw ku dem keneen ñëw ku dem keneen ñëw waaye kullama jaahum rasul saa yu leen ab yonent dikkalee looleen yàlla di wax fii laqad ca dëgg-dëgg man yàlla maa ngi giñ ci sama màggaay axas naa jàpp naa jël naa misaaqa dikk ah bani israil xeet wi di banu israil wa arsalna ilayhim rusulan man yàlla ma yónnee leen ay ndaw du kenn de su fekkoon benn yonent la leen yàlla yónnee kon lu muy wax rasul su ne rusulan ay yonent yu baree bari la leen yàlla yónnee waaye lan mooy seen taxawaay ñoom waa banu israil saa yu leen yàlla yónnee ndaw ñu xool ñoom lan la ñuy def kullama jaahum rasulum saa yu ndaw ñëwee ah bi ma la taxawa anfusum loo xam ne seen bakkan gërëmu ko ndaw li ñëw di wax loo xam ne neexu leen di tere loo xam ne dañ koo bëgg ci seen xol yi ni ñuy def fariqan kazzabu ñu weddi ñenn ñi ne leen du dëgg yàlla yónniwu leen ñooñu sax ñooy ñi tane wa fariqan yaqtulun beneen kuréel bi moom dañuy jàpp rek rey na ñu ngi xaar yàlla na yàlla ñëw kon yàlla leeral nañu lan mooy taxawaayu banu israil ci yonent yi waaye lan mooy taxawu banu israil ci message bi leen yàlla di yónnee mooy lan kullama jaahum rasulun saa yu leen ndaw dikkalee lu bàyyeekoo ci yàlla ñëw ci ñoom waaye ndaw li ba mu ñëwee dafa indi loo xam ne ma laa yuhibbunahu loo xam ne ñoom bëgguñu ko bëgguñu ko ci wax wala tamilu ilayhi anfusahum almarida seeni bakkan yi feebar yi nanguwuñu loolu ku ci wax lan la ñuy def xanaa mënoon nañoo wedd rek yem ci waaye fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun dañuy jàpp benn kuréel bi weddi leen ne leen du dëgg yàlla yónniwu leen ñeneen ñi jàpp duñ ci teg ay baat ay jaasi la ñuy jël dóor ñu dee wala yàlla di wax ne yonent yi ma leen doon yónnee dañoo tegaloo waaye saa yu yonent ñëwee rasulun bi ma laa bi ma laa yuwaafiqu ahwaahum loo xam ne yonent bi da koo indi fekk seeni bànneex dàkkooru ci naa bëgg-bëgg yi pourtant loolu dal yahud yi moo ñuy dal nii léeg-léeg ñu wax la mbir moo xam ne lii yàlla bëgg ko fekk yow mbir mi def nga ci ay millions ñu ne la lii yàlla bëgg ko nga ne ah mais man def naa ko ba pare de wala takk naa ko ba pare de wala dugg naa ci ba pare de ab julit suñ ko ne yàlla bëggul li dafa war a bàyyi fekkee ne baat bi ngay woote ne gëm naa yàlla dëgg la gis ngeen sahaaba yonente bi alayhi salaatu wasalaam keroog ba alxuraan wàccee di wax ci mbirum muuraay ñoo xam dañoo demoon marché ñi dañoo demoon teen ya waaye bi ñu leen fekkee foofu indil leen information ne leen yàlla nee na jigéen bu mu dafati bopp neen am na ñoo xam ne dañoo taxaw ne ñoom du ñu buuse lu dul ñu indil leen lu ñu teg seen bopp doog a dem waaja ba yonent bi tekkee ci loxoom lam sànni ko ci suuf yonent bi won ko ginnaaw gaa yi ne ko jëlal salam dane yonent bi du tekki sama loxo lam ma koy takkaat loolu mooy iman waaye di woote ne ngëm yàlla koo xam ne yow saa yuñ la waxee lii daganut fekk nag gëm nga ko bëgg nga ko nga jommi nga matt ko ak say digëj loolu jikkoy yahud la yahud mooy ñoo xam ne saa yu leen yàlla waxee nangam bi bëgguma ko wala gërëmuma ko comme ñoom seeni bakkan daf ko bëgg jaral na leen bàyyi yàlla waaye jàpp ci lii waaw mus nañ ma wax benn jigéen bu greffage ñu ne ko lii de yàlla bëggu ko mu ne man de bàyyi yàlla moo gën a yomb bàyyi lii waaw bàyyi yàlla ci man moo gën a yomb ma bàyyi sama greffage waaw foofu la nit ñi toll loolu nag mooy jikko yëhu dëgg ñu ne la mbir mi yàlla bëggu ko nga wone fettéerlu waaw fettéerlu jaay dëgër bopp loolu mooy jikko yahud loolu la ñu yàlla wan tey ci aaya bi muy première aaya mu ne saa yu leen yonent indilee maa laa yuwaafiqu ahwaahum loo xam ne seeni bakkan bëggu ko ahwa jamu hawa mooy bànneex wa huwa almahbub mooy loo xam da nga ko bëgg den saa nga gis benn xale bu jigéen benn xale bu góor bu bëgg benn xale bu jigéen papaam ne ko bàyyi ko mu ne papa su ma ko naree bàyyi bàyyi la kii ku ko nar a tàqale maak moom ma tàqali koog yow ah bon mu ne waaw waaw papa ji ne ko kon kër gi sama kër la mu ne ma génn daal di ànd ak jabaram ñu génn dem luwe ji ndeysaan mu bàyyi ndeyam ak baayam ndax jigéen waaw ndeysaan bi ma la taxwa almahbub loo xam ne da nga ko bëgg ci sa biir xol bi wa fi'luhu loo xam ne da nga koy jëf waaw moo tax sooy bëgg bëggal ndànk yenent bi nee na ahbib habibaka hawnan ma bëggal sa xarit ndànk un jour mun naa ñëw mu nekk sa noon waaye booy bañ nit aussi bañ ko ndànk bis mun naa ñëw mu nekk sa soppi bul ëppal ci leen bëggal ndànk bañal ndànk waaw mu ngoog mu ne saa yu leen yàlla jalla jalaaluhu indilee ab ndaw loo xam ne la muy wax d'accorduñ ci kazzabuuhu ñu weddi ko fa lamma jaahum bihi fii ma jaahum bihi calam leen indil ñu koy weddi ne ko li nga indi moom yàlla waxu woo yow yàlla yónniwu la yow yàlla dina la yónni te ñun ñu nekk fi yàlla bàyyi nu fi di la yónni yow waaye may ñu jàmm waaw ñoom diw ñoo la ëppoon xam-xam waxuñu lii ngay wax loolu dafa bëri ci dëkk bi même tey jii yow mi nga xam ne da ngay góorgóorlu léeg-léeg ci koñ bi wala ci jàkka ji wala ci dëkk bi wala ci famille bi nga taxaw wax lii ñu ne la xoolal saay diw moo la ëpp xam-xam mais lii ngay wax mus ko wax diw moo la raw mais lii ngay wax nii moom mus ko wax su fekkoon ne lii dagan na wala araam na kon kooku dina ko wax bal sax yenn saa yi ñu ne la gis nga jabaram day def lii moom sax day def lii mas naa julle ndoog benn waay mu takk lam ñu pare ma koy wax may waxtaan ak moom pour mu tekki lam bi mu ne ma sawaay diw moo la ëpp xam-xam moo la raw te moom day takk lam man ko sawaay law kaana al ilmu min duni tuqaa sharafan la kaana xayru xalqillahi iblis ne loolu mooy lan ma ne ko bu fekkoon ne raw mooy tax nit ragal yàlla kon iblis ñun ñëpp moo ñuy gën a ragal yàlla ndax moonu raw iblis moo raw ñëpp yonent yi sax iblis a leen raw ndax moo leen mag moo leen ëpp doole moo leen ëpp kàttan moo leen ëpp pexe kan moo tarxiisaloo yonent yi kon moo leen ëpp doole kon bu fekkoon ragal yàlla raw am xam-xam day tax ni ragal yàlla kon ñu ñëpp iblis mooy pay waaye nag xam-xam taxuta ragal yàlla nit yenn saa yi day am xam-xam ba pare kàccoore moo tax yonent bi doon wax ne ñaari nit ci sama xeet suñu baaxee nit ñi baax bu ñu bonee nit ñi bon bal sax moo tax yonent bi ne ñaari nit fit la lañ ci xeet wi waykat yi sax way nañ ko fasaadun kabir alimun mutahatti mu ne wa akbaru minhuma jahilun mutamassik fitna bi gën a rëy ci ci xeet wi mooy boroom xam-xam bu kàccoore buy daganal njaalo di daganal ay gerefaas di daganal musique di daganal bombaas di daganal ay takk sëy ci ay ay ay ay message boroom xam-xam bu mel noonu su nekkee ci xeet xeet boobu alku nanu ndax lu bon lay def su ko defee kuréel gi bëgg a def lu bon ci ginnaawam la ñuy wiiri di ko làqatoo koo wax mu ne diw nee na dagan na kon dama koy def beneen bi mooy ku xamul dara kuy jaamu yàlla kooku tamit fitna la ci xeet bi ku xamul dara mooy jaahilul mutamassik jaahil boo xam ne xamul dara te dafa tar nag tàng jër kooku tamit fitna la ndeysaan ndax lan ndax nii muy jaamoo yàlla nit ñi dañu yaakaar ne nii la kii xam ne te xamul dara li ma doon waa ji doon wax léegi-léegi mu ne bu fekkee da ngaa fekk néew mu faatu lu yàgg def nii loxo bi ba loxo bi mënutul ñëwaat nii mu ne dañuy jël dagg loxo bi allahu akbar dagg loxo bi bu fekkee tànk bi moo bañ a ñëwaat ñu dagg tànk bi loolu doy na waar de waaw moo tax diine bi ñaar ñi fit la nañ ci bandi bu am xam-xam fitna la waaye ku xamul dara ku bëgg a jaamu yàlla fitna la mu ne yemuñ ci weddi rek yonent yi parce que yonent yi dañoo ñëw di wax loo xam ne neexu leen ah loolu tey yonent yi doon wax neexul nit ñi tey jii borom xam-xam yi loolu la ñuy wax du neex nit ñi waaw am na ñoo xam ne naan déglu leen diw bu leen déglu diw dem leen ci diw bu leen dem ci diw lu tax parce que li muy wax neexu la rek loolu kese la xam nga ne li muy wax mënoo koo dégg moo tax ñu wutal nit ñi léegi ay frontière ay barrière dem leen fee bu leen dem fee déglu leen ñi bu leen déglu ñi waaw bu leen di jullee jàkka jee dem leen di julli jàkka jee loolu loolu système u yéeféer la yéeféer yi ñoo doon wax laa tasma'u wal xaw fii bu leen déglu alxuraan bi yuuxu leen bu leen ko déglu bu ngeen ko déglu rek dana leen jabar duñ yem ci weddi yonent yi waaye dañuy jàpp ñenn ñi wa fariqan yaqtuluun waaw ñu jàpp yenn yonent yi rey ndeysaan borom bi nee na ñu yaakaar ne nag wa xasibu ñu yaakaar ndeysaan ñu yaakaar lan an laa yu aaxizu bi zunubihim waaw ñun li ñuy def garaaw yàlla duñ ko jàppee wa xasibu ñu njort an laa takuna fitnatun ñi li du dara def crime ba pare jàpp ne du dara garaawul yàlla dinañu comprendre quoi waaw nañu life life bi quoi dundu town bi god dinañu comprendre wa xasibu an laa takuna fitnatun ñu yaakaar ne lii du dara yàlla du ñu jàppee bàkkaar yi ndeysaan moo tax bëri na nit di def lu bon ba pare du ci du ci bàyyi xel saa yooy def bàkkaar nag te doo yëg ne def nga bàkkaar yëgal nga yaa ngi jëm ci kàllaabaraane ala qulub yëgal ne sa xol bi mu ngi xomaat waaye saa yoo defee bàkkaar tiit mu jaral laa woor pour yàlla baal la mu jaral laa naafila pour yàlla baal la mu jaral la jàngal xuraan mu jaral la jooy mu jaral la mu jaral la rek yëgal ne sa xol baa ngi baax waaye saa yooy def bàkkaar te doo tiit doo rëccu doo sentir dara yëgal ne yaa ngi jëm ci mbon yëgal ne yaa ngi yàqu waaw ndax kenn warul tooñ yàlla sa conscience tranquille ñii nag lu tax seen xol yee wow seen xol yee yàqu xam nga ku dem ba weddi yonent loolu rek crime la yemoo ci weddu yonent waaye nga rey ku rey yonent loo deseeti jeexal nga di moo tax ba ñu reyee yonent yi mënantu ñoo def leneen beneen bàkkaar bu gën a rëy loolu li ñu yaakaar ne lii du dara Hmm, allahu akbar wala borom bi ne fa amu ñi gumba nañu wasaamu tëx nañu gaay kan moo mën a waar ko gumba ku tëx kan moo la mën a gindi koo xam ne yow da ngaa gumba yamu ci nga tëx ku la mën a indi waaye xoolal lii ñuy def yëpp li mu garaaw beddi ay yonent ndax seeni bànneexi bakkan rey ñii ba pare jël affaire bi def ko du dara ba ñu tuubee yàlla da leen a baal lii yëpp li ñuy def li muy garaaw garaaw ba ñu tuubee summa taaba allahu alayhim yàlla daal leen di nangul tuub moo tax sunu borom mooy kan ah ndeysaan nee na boo defoon ay bàkkaar ba mu toll ne vague géej soo tuubee man yàlla ma baal la moo tax taw tuub nit ñi war koo dëkkee guddi ak bëccëg comme dañuy def ay bàkkaar li ibnu mas'ud doon wax muznibun wa abnaul muznibun da ngeen di def bàkkaar ay doomi bàkkaarkat ngeen parce que ñuy def bàkkaar ñoo leen jur mu ne leen law alimtum zunubi la rajamtumuni bil xijaari xatta al mawt su ngeen xamoon samay bàkkaar man abdullah ibnu mas'ud di ngeen ma dóor ay xeer ba muy ba ma dee bal sax yonent bi daf noonu noppal ne kullu ibnu aadama xataa doomu aadama yëpp dañuy def bàkkaar wa xayrul xataaina tawaabuun ñi gën a bëri ci defkatu bàkkaar yi mooy ñi gën a baax ci defkatu bàkkaar yi mooy ñiy tuub xoolal ñi liñ def li muy garaaw garaaw ba yàlla adressé leen ne ñii gumba nañu tëx nañ waaye summa taaba allahu alayhim ba ñu tuubee yàlla daa nangu seen tuub ndeysaan xanaa waroon naa doy borom bi nee na summa amu ñu gumbawaat wasamu ñu tëxaat kasirun minhum lépp ci ñoom ñu delluwaat encore dugg ca mbon mbon nga wallahi sunu borom nee na jalla jalaaluhu ba ñu defee seen mbon gëmba gumba ci bañ a gis dëgg tëx ci bañ a dégg dëgg bañ a déglu waaraate yàlla nattu leen seen borom. ah teg leen ay natt yu métti méttee métti métti yàlla teg ci ñoom ñoo koo xam ne daf leen a mbugal guddeeg bëccëg summa taaba allahu alayhim yàlla ci la nangu seen tuub nag fa taabu ñu tuub wastaqaamu ñu jub ñu jël mbirum yàlla ñu yàq la ñu yàqoon ñu defaraat ko borom bi tabaraka wa taala dafa ne dañuy sax ci loolu summa amu ñu delluwaat gumba wasamu maratan uxra ñu tëxaat deuxième fois mu ne illa qalilan minhum lu néew ci ñoom fa sallata allahu alayhim man saamahum ay encore su al azab yàlla tegaat seen kaw koo xam ne moo leen tegaat mbugal mu dul jeex ndeysaan allahu akbar mu ne lu ëpp ci ñoom ndeysaan illa qalilan minhum lu dul lu néew lu ëpp ci ñoom kasirun minhum dañoo delluwaat dugg ci bàkkaar ba yàquwaat mu ne wallaahu yàlla bi ma yaamaluuna ca la ñuy doon def basirun aji gis la ko amul ci kaw suuf kuy def dala lu dul yàlla teg na ci gis gisam waaw wallaahu basirun bi ma yaamaluun yàlla ku gis ñoom lañ doon def la wallahu yàlla basirun aji gis la bi ma yaamaluun ñoom lañ doon def waaw mbokk yi yàlla bu nee doomu aadama li muy def maa ngi koy gis bu dee ab jullit li ngay def maa ngi koy gis ndax yow sa xel war na dal yàlla ne la maa ngi lay gis xoolal tey rek yow mi nga xam ne sa doom da nga ko ne maa ngi lay gis nga yow looy def maa ngi lay gis sa patron rek fi ngay liggéey bu la nee looy def maa ngi lay gis kon boo nekkee ci liggéey bi da ngay normal xoola buur bu dol na yàlla ne ñii la ñu nekkee lépp lépp a ma leer ndax lépp laa gis kon aaya yu mel nii ci war a bàyyi xel moo tax chaque jour ñu ne soo jàngee alxuraan ba aaya bi di jeex bàyyil xel ay fu ñuy jeexee sunu borom ñëw ci mbirum Isa ci aaya 27 bi borom bi tabaraka wa taala ne laqad kafara weddina comme na mu giñe woon ba muy wax mbirum banu israil laqad axasna dafa giñoon mu ñëwaat ba tey di wax ci mbirum isaa mu feddali ngiñ bi moom borom bi mu ne laqad maa ngi giñ ci sama màggaay dëgg-dëgg kafara weddina ay yéeféer la ñan allazina ñi nga xam ne qaalu wax nañ ne inna allaha naka yàlla huwa almasih moom mooy messi yàlla nee na ku wax ne isa yàlla la messi yàlla la yow ko yéeféer nga waaw léegi nag alxuraan bi kañ la wàccoon ah mbokk yi alxuraan bi kañ la wàccoon septième siècle alxuraan wàcc yàlla mu ne ñii ne i messi ay yàlla la ay yéeféer lañ boobu ba léegi ñun mënuñoo gëm ne ñooñu ay yéeféer lañ te yàllaa ko wax ah yàlla moo ne ñi ay yéeféer lañ kon ku gëm ne chrétiens yi ay jullit lañ ba nga yaakaar ne mën nga cee takk yéeféer nga takk ndax yàlla nee na ñi ay yéeféer lañ wala ah kon boo ci takkee loo takk yéeféer nga takk parce que yàlla moo ne ñi ay yéeféer lañ wala lii du ay alxuraan sama téere kese lañ ko bind nekkul seen téere yéen lan moo fa nekk kan moo ma koy liiral laqad kafara allazina qaalu inna allah baatu kafara la yàlla utilisé mu ne ñi ne messi yàlla la ay yéeféer lañ kon ku ne nasaraan yi du ñu ay yéeféer yow lan nga lan nga weddi alxuraan nga weddi parce que yàlla mu ne ñi ay yéeféer lañ hatta isa ci boppam dana ñoom ay yéeféer lañ moom isa fa lamma ahassa isa minhum al kufra isa ba mu sentiree sax entourage am bi ñii wër ko ay yéeféer lañ daf leen a daf leen a bàyyi qaala man ansaari ila allah ah kon moom isa bu ne ñii ay yéeféer lañ yàlla ne ñii ay yéeféer lañ ñun ñu bëgg a toog fii di leen layale leneen dañ seetaat suñu bopp li yàlla wax mooy dëgg ndax yàlla ne ne ñii ay yéeféer lañ borom bi nee na laqad ca dëgg-dëgg axbara taala sunu borom xabaar na muqarriran sunu borom saxal muhkaman hukmuhu atteem bi kufri ci weddi ala man iftara alayhi képp ku fenal yàlla ala rusulihi ci yonentami faddaa anna allaha jalla jalaaluhu wa azzama sultaanuhu huwa almasih képp ku ne sunu borom jalla jalaaluhu borom mbàgg gu réy gi borom nguur gi moom mooy isa moom mooy almasih ibnu maryam sunu borom nee na yow yéeféer nga taala allahu an yakuna abdan min ibadihi sunu borom mbokk yi sori na màgg na moom yàlla moom yàlla ay melokaanam jomb na muy jël melokaanu jaam ci jaamam mi di ko nekk wa xaasa isa abdullahi wa rasuluhu isa ci boppam jaam la nangul yàlla waaye reconnaître ne moom yàlla la nanguwul wax ja gaa yi wax wax ñi ko gaa yi ne antallaa yow yaay yàlla moom ci boppam nanguwu ko kon na leer ci sunu bopp ne yàlla mooy yàlla amul kenn amul ñaar amul ñett amul doom amul soxna bis bu nekk ñoo ngi taxaw di jàng qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufan ahad hatta jinne yi nga xam ne ay jaam lañ ñoom nanguwuñ ne yàlla am na doom nanguwuñ ko de jinne yi sax dañ koo bañ jinne yi nee nañ ñoom yaakaaroon nañ ne nit du fenal yàlla wa annahu taala jaddu rabbina mattaxasa saahibatan wala walada sunu yàlla sunu borom màgg na jalla jalaaluhu jomb na moom yàlla muy am jabar waxuma laak nag muy am doom mais mbokk yi ñun sunu kilifa yi rek gars yi dañuy rus ne am nañ jabar sunu kilifa yi rek da ngay gis benn diriyànka bu romb nii gars yi duñu wax de ñooy jabaru sëriñ ne yi soxna soxna sëriñ bi la soxna sëriñ gars yi sax bu ñu wax soxna bi sax dañ koy xaw a suufil quoi kii soxna bu ñu ne kii jabaru sëriñ bi la la wala soxna ustaas bi la wala jabaru ustaas bi la wala jabaru jeex na mais ñun ay jaam lañ dañuy amee jabar est-ce que ko am jabar da ngaa manqué wala mato wala lenal nga ah sunu borom dong moo mucc ci loolu ataa yonent bi dafa may soxna ñëpp ñëpp képp kuy góor nekk jullit nekk jaamu yàlla yàlla moo def ci yow ngay sëy bu dee jigéen nga tamit kazalik waaw sunu borom dong nga jomb loolu mu ngoog léegi nag nit ñi lu tax lu ñu jombal wax seen seeni kilifa yi ñu koy wax yàlla waaw li ñu jombal wax seeni kilifa lu tax ñu koy adressé yàlla kon Isa du yàlla texte alxuraan yépp dafa weddi yàllaam kon du yàlla bal sax yàlla ne ku wax ne moom yàlla la yow yéeféer nga waaw laqad kafara weddina allazina gaañ a nga xam ne qaalu ñoo wax inna allaha naka yàlla huwa almasih moom mooy isa ibnu maryama doomu maryam moom ci boppam wa qaala wax na almasihu messi yaa bani israil yéen doomu israiliens yi yéen yahudi yi ibudullaha jaamu leen yàlla rabbi sama boroom wa rabbakum ak seen boroom kon leer na moom lan la leen wax jaamu leen yàlla mi nga xam ne mooy sama boroom mooy seen boroom wéetal leen yàlla mi nga xam ne mooy sama boroom mooy seen boroom waaw waxul waxul ne jaamu leen sama papa waxul loolu de ibudullah la wax jaamu leen yàlla su yemoon foofu leer na waaye mu ne leen rabbi kooku du sama baay du sama lenn sama lan la mooy sama boroom waaye yéen ñii wa rabbakum mooy seen boroom innahu li wóor tey mbir man képp koo xam ne yushrik billahi bokkaale na yàlla wax na ne man yàlla laa wala sama yaay yàlla la wala ñun ñett ñëpp ay yàlla lañ wala nga jël keneen wala leneen nga bokkaale ko ak yàlla faqat te dëgg-dëgg xaramallahu yàlla araamal na alayhi ci waajooju aljanna aljanna ay yi gën a gëraaw alquran bii ci la bokk ku bokkaale yàlla yàlla nee na araamal naa ci yow aljanna xam ngeen lan mooy araam baatu araam lu muy wundu ah baatu araam mooy loo xam ne yow ab julit waroo koo def dafa araam ci yow yàlla ne ku ma bokkaale araamal naa ci yow aljanna yow terminé kon bu yàlla araamal naa ci yow aljanna foo jëm waaw leer na nañ de kon bokkaale baaxul te tey néew na ci ñun ñu ci mucc bokkaale néew na ci ñun ñu ci mucc li ëpp ci jaamu yàlla yi ci suratu yusuf yàlla nee na wa ma yumin aksaruhum billah illa wa mushrikun lu bëri bëriwul lu bëri ci nit ñi seen ngëm yëpp dafa am bokkaale ak néew ci nit ñi ñuy jaamu yàlla kese waaw da nga gis benn mbokk bu góorgóorlu ay fan jékki-jékki rek nga gis mu mu takk benn sagar bu xonk mbokk lii la la dama sonn mbokk waaw kër gi sax ñoo ma ko xaw a takkal quoi na loolu musiba la wala sama yaay moom ko takkal moom ci faju faju faju yi faju yi saa ngi yàlla teg nattu kenn feebar jékki-jékki rek sawaay gaa yi yóbbu ko ci xërëm yi sang ko loolu musiba la ab jullit du bokkaale ab jullit du bokkaale mbokk yi bokkaale day yàq jaamu yàlla waaw bokkaale yàlla du ko baalaati ku ko deewaale rek safara nga jëm soo déggee yàlla baal na bokkaale kat mooy da ko tub balaa muy dee soo deewaalee bokkaale rek safara nga jëm moo tax yonent bi alei saa salaam daan ñaan yàlla yàlla yàlla nag ma jéggal ba bokkaale bu ma yëg ak bu ma yëgul te yonent bi nee na ashirk ak faamin dabi bin nam la dafa sew dafa sew dafa lëndëm maanaam dafa naqaree gis axfaa min dabibin nam la moo gën a nëbbu tànki xorondom xorondom bu ñuul di dox ci xeer wu ñuul ci lëndëmu guddi ñaata ñuul la tegale ñett ñu ne la nañ ko gis teg ci sa bët loolu dafa jafe kon lu muy tekki mooy nañ góorgóorlu mooy tandiku bokkaale waaw bokkaale nag am nay xeet benn baaxu ci yàlla tabaraka wa taala moo ne ñu ne li wóor tey mbir képp koo xam ne man ismu mawsul képp koo xam ne yushrik billahi dafa bokkaale yàlla associé yàlla ak leneen ah yushrik billahi gayruhu taala min saairil kainaat nga dendale yàlla ak bépp mbindeef fa yaabuduhu nga koy jaamu ma allahi nga koy booleeg yàlla bi ay nawin min anwail ibadat nga jël benn façon ci façon jaamu yàlla yi nga jox ko am mbindeef koo xam ne yàllaa ko bind moo xam lu mu mën a doon pare nga waaw li ci ëpp ci jamono bi nag mooy kilifa diine yi ni ñu leen di def di leen toroxlu la di leen simmili mbax naat yooyu musiba la di raam ak di o noonu yàlla taxaw waaw ci facebook bi laa seetaan benn waaye boo xam ne day jàpp gaa yi indi paan dikk ndox mi muy raxas di sëlmu di yàbbi di kii di ba raxas tànk yi gaa yi daal di jël naan mu ne allahu akbar naan daal di diw o ngay ndeke nit ñi toll nañ fi ah nit di jàpp li génn ci yaramam lan la nga nit daal di koy jël naan ko daal di jël diw ñun yàlla yërëm innahu man yushrik billah képp ku bokkaale yàlla faqad xarama allahu yàlla araamal na alay ci moom aljanna aljanna lii rek doyoon na mbugal waaye mu ne wa mawaahu këram annaar mooy safara doyoon na rek yàlla mu ne yow araamal naa ci yow aljanna waaye mu ne wa mawaahu naar këram safara la allahu akbar mu ne wa ma lizalimina min ansaar kuy tooñ yàlla kenn du la dimbali ëllëg wa ma li zalimina min ansaar kuy tooñ yàlla ëllëg amoo ku lay dimbali waaw waaw ndax buur bu toll na yàlla ku ko tooñ wallahi kenn du la dimbali ëllëg ndax doo am ñu lay dimbali fa hal hada fa hal misla hada al qawl yusdaru amman yudaa annahu allah wabnullah subhanaka allahumma hada buhtanun azim isa moo wax lii de moom mi wax wax ji est-ce que kon dinañ ko dëggal ne moom yàlla la moom moo ne leen i'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimina min ansar kon wax ji gémmiñ nga mu génnee est-ce que danañ ko def yàlla waaw léegi nag mbokk jullit yi su yàlla di duma nit ñi nga xam ne dañoo wax isa yàlla la yàlla di leen duma te isa ab yonent la mu ngi bokk ci ulul azmi min ar-rusul ay nit tuumaal ko wax ji yàlla duma leen kon ku jël keneen ku dul isa wax ko wax ji lu ñu lay def kon ku jël keneen laa wax ku dul isa nga takkal ko garaat bi ne moom yàlla la kon yow bu la yàlla jàppee lu ñu la war a def su fekkee yàlla nee na ñu ne isa yàlla la ay yéeféer lañ kon ñi wax garab gi yàlla la ñooñu lan lañ ñi ne sëñ bi yàlla la ñooñu lu ñu leen war a def ñi ne diw mi yàlla la wala ki ne man yàlla la kon yow lan lañ lay war a def ëllëg kon loolu mooy darsu tey ñoo ngi jéggalu njuum tey yal na nu ko yàlla jéggal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu